ndax loolu euh, du loo xam ni moo gën parce que euh, Sénégal yi dafa am loo xam ko tàmm yàgg ko gis. Mm-hmm. soo xoolee sax balaa maa dugg ci yeneen détails bu ñu xoolee 2012 bi passé euh, wax dëgg yàlla tey woon na ci bopp defar nañu pour ñëw nekk candidat te président yaakaar ne amoon na taxawaay ak jëf joo xam ni nit mënoon na xalaat nangu ni moom mën na nekk président. Mm-hmm. mais soo ko gisee ñi nga xam ñoo àndoon ñu ne woon bennoo. mais ñun si Sénégal yaakaar naa entre deux grands responsables ndem si yàlla si Ousmane Tanor Dieng. Mm-hmm. mais boo ko xoolee bi ñu àndee ñoom compté sax ñu suñu premier tour am na ñu bëri mais ànd bi ñu ànd am kenn moom moo gën. Mm-hmm. dañoo fay la force. waaw ñoom ñaar ñu si escorte sax boo ko xoolee sax rawatule mais. dafa nekk loo xam ni kenn waru ko du fooyee daal. waaw c'est dangereux xar-xar su amee rek personne la daanaka 2000 sa laa war a wax. Mm-hmm. exemple 2000 la ñu war a wax. Mm-hmm. l'an 2000. waay ñas jibo ñas ak jibo. vraiment jóge bi ñu fa jóge. moom moo daal ñu bari ci mm-hmm. budget ñun tamit. boo ko xoolee sax 2012 ah Idriss Seck jóge na fa. waay ñu jóge fa. mais yaakaar naa ne Abdoulaye Wade li mu am ak Macky Sall président Macky moom ak Idriss Seck bu ko amoon yaakaar naa ni kon xëy du demee noonu mais comme mbir bi demee na ba noonu. président moo waroon def am yaakaar mais moom day ànd ak kon képp ku ci jël ci ñoom sax programme président ngay présenté bilan ngay présenté. moo tax yow nga jàpp ne président duñ ko remplacer mais ki ñëw dafay continuer l'œuvre du du chef. mais mais loolu rek mën a wax parce que président ci boppam euh, yaakaar naa ni boo xoolee li mu tëgg yoonu yokkute plan Sénégal émergent. Mhm. président horizon deux mille trente cinq lay wax xam nga deux mille trente cinq mu fi yàlla bàyyee tamit dafa ñu fekk ay mag wala yu demee noonu. ba xam ne président fàtte na boppam. ak li ko yàlla dénk ak li ko yàlla may ci bakkeen ak dund ba mën a ni li may liggéey wala dem ba 2030 kon ku fa mën a dem bilan ak programme da nga a wane te moom na moo nangu ba nekk moo nekk directeur da campagne mm-hmm. kon moom jëmmam day feeñ ci candidat bi comme ni Abdoulaye Wade defoon bëri mais bii du ko feeñal parce que dafa respecté loi ah. kon yaakaar naa ni problème boobu